ba ci làmb ji sax. làmb ji am na lu ma ci waxoon. waaye promoteurs yi. nañ jóg seen bopp bu baax baax gis naa ci ñu bari ñuy faatu ci at mi. gis na ñu bari ñoo xamante ni wallaahi la mi gis naa ci ñu bari ñuy faatu ci at mi te bul fàtte Balla Gaye. Balla Gaye. Mhm. waaw Balla am na combat mais ak Tapha Tine mais ñu bëri jàpp nañ Tapha Tine da koy daan. danaa ci leeral lu bari wax la kan mooy daan moom tamit. làmb ji incha allah ma lay wax kan mooy daan. Mhm. ak nan la koy daanee ak lan mooy xew ci stade ba. mais yow yaa wax kan mooy daan ci làmb ji. jël bu bon laa ci gis. damay ñëw tudd tur TFM. TFM ka ko jiite. Mhm. mu Youssou Ndour. Mhm. ñu dalal imam war a waxtaan ak moom ci actualité réew mi dina waxtaan ak moom nag ci li muy liggéey rawatina dee yi xam te ni commencé nañ koo nemmeeku ci ete euh, bi xam mi ngi ñëw. am na xale bu jigéen boo xam ne dafa dugg ci géej gi am ko ko doon dima jàppale mu nekk xaritam ñu naan faram la sax waaye dafa mujjee lab ak moom ñun ñaar ñëpp génn àdduna bu ñu jógee ci loolu dina waxtaan ci lam ji xamante ni dox na diggante eh, kii ñuy wax Eumeu Sène ak Sa Thiès mi nga xamante nii Balla Gaye 2 Eumeu Sène daf ko daan deux fois moom mu dem jël kii ñuy wax Eumeu Sène pour daan ko moom Sa Thiès lépp nañ waxtaan dina waxtaan ci actualité réew mi al imam ñu ngi lay ziar général ñu ngi lay fay dañaan ci réew bu jàmm du ko ñaanoon Cheikh Mamadou Mountakha du ko ñaanoon suñu bopp bismillah am na solo fi ñuy commencé mooy gis nañ ne lamb yi daanaka ñëw na balaa ñëw ci actualité réew mi diggante kii ñuy wax Sa Thiès taxaw na ak Eumeu Sène ba xam ne léegi ñu bëree ko naka nga gisee combat boobu. lamb ji incha allah maa lay wax kan mooy daan. Mhm. ak nan la koy daanee ak lan mooy xew ci stade ba. nga yow yaa wax mooy daan ci lamb ji. jël bu bon laa ci gis. nga ne jël bu bon. laa gis nga gis ci combat bi. Mhm. te bul fàtte Balla kay Balla Gaye mhm. waaw Balla Gaye am na combat mais ak Tapha Tine mais ñu bëri jàpp nañ Tapha Tine da koy daan danaa ci leeral lu bari wax la kan mooy daan moom tamit ci combat boobu incha allah am na solo kon diggante Balla Gaye ak Tapha ñu bëri doon ko xaar al imam mi ngi nii gëj naa génn nag avant koor gi ba tey daanaka gisuñu ko koor gi jeex na tey ñu ngi am rek mu émission al imam fi ñuy commencé mooy dana gis nga def seet bu am solo boo xamante nii ñu bëri dan naan al imam boo woowee lam lay wax day parce que da nga leen di wax loo xam daf leen di tiital ndax man daanaka seet gi mooy du seetu mm. ko ma dàq seet ci réew mi su ma demee may takk léegi diw naa moo ko dàq ma bàyyi seet yàlla seet seet ma bàyyi jëmi seet sa loxo bii ngay foto yónnee mbokk jox ma sa tur ak sa sant ak sa tur waajur jigéen lépp lu nekk ci yow te nëbb naa ko leeral lépp loo xam ne dafa nekk ci yow nga koy nëbb boo bëggul mu feeñ ma seet loo la seet loo dama lay génneel bu si dee ne la su tel ngay dee bu la ay fan dese wallaahi lancimi man su ma seetlee doomu aadama ba noppi dama naa ko bul seetwaat ci àdduna dama lay teg ci aw yoon mm-hmm. waxal sa sarax wax lay jëmale kanam wax lan moo ca gàllankoor teg la coono demal. bul hmm. ñaan looti bul seet looti ci àdduna. am na solo. Hmm. damay ñëw tudd tur fm TFM ka ko jiite. Hmm. mu Youssou Ndour. na jóg ci boppam dañ ak bi. lu ko may dana fa ñàkk lu bari. lu ko may dafa ñàkk maa ko wax xam nga tudd tur du ma junj mais al imam la mooy sa problème dañoo gis jamono bi xamante ne Wally Seck nekkoon na ci ay jafe-jafe nga génn wax loo xamante ne askan bi dem daf leen a jaaxaloon ñu teg ci ay fan mu nekk way juróom tey nga ñëw joxe ñaar TFM damay seet du ma ragal damay gis li ma gis génn carrément leeral ko nit ñi gis ko man du ma ragal du ma tàppet lu mhm. ma gis damay génn carrément woola ba nga ñëw ma leeral ko si bi nit ñi mën ca jot damay seet seet gi mais du seet gone mhm. ba ci làmb ji sax làmb ji am na lu ma ci waxoon ñu dof dof la bañ koo def mhm. waaye promoteurs yi nañ jóg seen bopp bu baax a baax baax gis naa ñu bari ñuy faatu ci at mi gis na ñu bari ñoo xam ne wallaahi laxasim gis naa ci ñu bari ñuy faatu ci at mi te <laughs> am na ko ma wowoon waxoon naa ko ay tegal defu ko wallaahi la nga xam fii ki fan dañu dégg ñu ne dee na. mais la mooy sa problème al imam dañuy gis euh, nga ay jamono nga woon bala Gaye 2 digganteem ak Boy ñaa nga am loo ci waxoon ba mu war a téléphone. coono bëri woon lool am ñu la doon menacé mais à la fin wala la téléphone nga am loo leen leeral nga jógee foofu wax ci Wally Seck coow lu bëri te ngay waxaat ci làmb ji al sa problème ak seet ak li ngay wax yëpp askan bi di ko dégg di ko gëm est ce que nekk sa ginnaaw. kenn nekkul sama ginnaaw lu wér. benn toog ci lu wér. Mhm. tappalewu ma woote ma ngir nit ñi gëm ma soxlawu ma ko man nee naa ba tey ñaa ngi def ma ko ab liggéey tey du métti man maa ngi ci leneen ak leneen. Mhm. li ma am ñaan mu muy ma ko ko jàpp ne ñaan ma ko may yaa ngi nax sa bopp. maa ngi sant yàlla bu baax baax a baax. Mhm. lii ma génn leeral nag maam bëgg leen jàmm moo tax ma koy wax mais soxla ma ci ñoom dara bëgguma leen a xamit mais nañ jug seen bopp bu baax a baax axlu làmb ak ñi ko wër. gis naa ci ay dee yu bari bari ba ci làmb yi ci promoteurs yi. lii maal nga wax nag. am na solo euh, bu ñu jógee ci lool yaa ngi doon wax sànq dina ñëwaat ci combat yi xam te nga wax kan mooy daan ak kan naka la koy daane mais balaa may ñëw ci lool Bassirou Diomaye Faye demoon Touba Bassirou Diomaye jamono bi mi ngi yëre pouvoir bi te jamono am nga loo ci waxoon askan bi moom yaa xam wax naan imaam waxoon na li wala waxul li ñëpp xam na la bu baax a baax euh, tey jii diggante ak Ousmane Sonko bëri jàpp ne seen relation bu am na fu muy toll day jeex. man du maa ndox ki tappale. Mhm. Bassirou Diomaye Faye maa njëkk a génn fii ne ne sa site bii ne. day jël nguur gi nga bari dagg ko vaar jàppale na ay naxa sax. ah gars yi ñu prépare pour yóbbu la vaar de. yaa ma dégg. Mhm. man ba tey nee naa damay toog bi di càmbar réew mi. Mhm. di xam actualité réew mi. Mhm. di génn di ko leeral. damay seet lépp ci seet laa ko teg de. nekkul dama koy waxee sama xelum bopp ak sama topp sama bakkan déedéet. lépp ci seet laa ko teg. Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko seen ana day neex. day neex dara du ko yàq. yaa may dégg. te na Sénégalais dalal seen xel xam ne réew mi dana neex dana natt mhm. wallaahi lancé mi dalal seen xel bu baax a baax am na solo ki ñu ko jox du tappalekat mhm. yaa ngi dégg mhm. du sàcc dana yor réew mi comme ñu koy tana defar réew mi man nga wax am na solo bi la joxee mbiru balaa ñëwaat ci continuer ci lam ji parce que li ñu ci war a leeral bëri na combat mbay moom macha allah léegi mu ñëw ba ci Modou Lo ak Siteu sax am nga loo ci waxoon ay jamono mais dafa nekk loo xamante nii lu garaaw la mu nekk mbirum noob askan bi ñu bëree bëri di la woo di la ko lan nga siy liggéey wàllum nopp Sénégal nit ki su ma wooyee bu di ma loo diggante. ak moromam ba ñu bëggante. tam xool ko te càmbar ko mu leer ma lii ay tappale amu ci mu leer ma lii ay naxasam amu ci da nga ñëw toog fi nga toog mu noobale nga dem si yoon. dama la wax fan dama la wax fan amul 24 heures sama kër nga ñëw sama saal ma defal na may def na demal la nga bëgg day sotti. macha allah am na solo bi loolu amee ba tey gis na ay ndombo yoo xam te askan bi ñu bëri daf di jaaxal ndombo yi am karaw am lu xonq lu ci nekk. général nomba yi ku suñu borom na nga ko dimbali doo ko am nomba gi deenu till nañ ko liggéey du man maa ko liggéey nag de man ka may ñaan ñaanal moo ko defar mais man nekkul ne ko defar dama ci indaal rek dama faa dem am ab somb ma ci jox ma jox ko seen nitu naa ba mu des nag am na ñoo xam damaa amaguñ waaye lii képp koo xam ne am nga ko njariñ wax nag xanaa nga woo ba téléphone ma wax njariñ mais lii boo ko amee wala bul takkati benn nomb sa àdduna bii kese mën nga xaar bii bul takkati benn sa àdduna bii rek waaw nekkut nag nag maa ko defar nag man ki ma defar mooy bii nomba gunjur gi tëj dëkk bi bi nomba réew mi uh-huh. nomba gii maanaam mm-hmm. la boo ko amee danga nga tëg doo dugg ko so ku la liggéey day faatu mm-hmm. ku la liggéey day dee sa mbokk képp ku la liggéey day faatu même sa mbokk moom boo ko takkee danaan demal seen mbokk wax leen ne bu ma kenn jëf-jëf ju bon ku lu ko def day delloo ci kawam mm-hmm. wallaahi laasimi waaw ana beneen téere boo xam te nii téere baat la aussi téere bii uh-huh. bii mooy téere baat bi. Mhm. mooy bi nga xam te ni maam mooy tullu fital bi. tullu fital bii sama mbokki américain la jotal lu ci ëpp nag. Mhm. bii maa koy takk man général man mii. Mhm. jox la fital na la dóoral nga door ba mu leeral li ma la ni du ay tappale ne la demal nga takk. tul la gu ànd ak képp ci lay dox moom. boo bëggee dañuy ànd ba fa la neex ma taxaw man jox la fital na la dóoral nga dóor. wallaahi la nga lu wér laa ci def te man yërëmoon xam ne ay tappale la. waaw. am na solo bi loolu jàllee am na beneen ndomb boo xam ne ndomb bu weex la aussi. ndomb gi moom doxul lenn ci lu kaaraange. kaaraange lii ci wàllu kaaraange képp lay dox. Mhm. moom sama client ma jël ci goo xam ne moom bii ndomb gi xame nañ ko. Mhm. ci kaaraange képp lay dox. te ndaw lu ci nekk war naa mën a jéem kaaraange ndax kaaraange muy lépp boo ko amul doo mucc. Mhm. mooy tax nga mucc mën a mos. am na solo bi ñu jógee ci lool al imam balaa ñu ñëwaat ci lam ji pour yaatal dañuy gis ñu bëri am ay feebar lu mel ni ngóora ndoxum siti ballonnement ba ci hémorroïde dan nga si liggéey boobu gis nga bii général lii dañ koo càmbar ba càmbaral ko ba amul benn effet secondaire bii mooy dindi wàllu émérique ak wàllu bolotement moom la dindi moom boo ko daa naan day raxas sa biir lépp lu bon da ci nekk da koy dindi muy bii lii bu fekkee wàllu sëy képp la ñor sëy nga bëgg a sëy rek maanaam di ko mottali ko daal ci wàllu kàttan amoo kàttan bii day yokk màndiwu góor maanaam màndiw bu ndoxee ba mënoo am ay walax jaat bii da koy yokk yaa ngi dégg. Mm-hmm. te da lay renforcer doole ba nga mën a sëy sëy bu baax. wallaay la nga ci néew kattan lay dox néew kattan lay dox bu baax a baax a baax. mais moom mm-hmm. bii ñuy ànd. bii da koy jëfandikoo di may doole bii. Mm-hmm. ñoom ñaar laay boole joxe loolu mooy traitement bi. am na solo bi loolu jàllee al imam ngay def samp doomu aadama xam ci lan nga koy liggéey. samp gi li ma koy liggéey mooy ci jaaro bi. léegi nag da gis ma toog ci avion yi yor jaaro. dama ko yóbbul ay président ak buur ak nit ñu ko soxla bëgg am sutura daggal ma bee mooy indil leen ko fa nekk samp googu nag ku yàlla dootu dimbali dama ko defal ci wàllu alal képp lay dox moom dama la ko defal mukk nga toog amoo alal dama la ko garanteel lay doon nga takk ko ma appal la ab app ne la amee boo ci egsee te gisoo njariñ la ma wax boo dikkee sa xaalis ñoo ma jox la ko mhm. bu mun ko jox rek nga dem pelente ma wala yow moom fanaan neex ci wàllu yoon ñu lijjanti ma. incha allah man sama lépp dama koy garanté ndax ñaan xaalis dama ci dugalul général xaalis dañ koy liggéey man yaakaaruma nit toog fii feebar wala nit wéré di am jafe-jafe ñoo dama jox sagaru un million ak cinq cent mille yaakaaruma ko ci lii man maa ngi sama yeneen business defuma lii métier daal wax dëgg yàlla maa ngi ci leneen ak leneen daal yàlla ma ci nattoo woon rek ma génn gëstu ci ay xam-xam suñu borom nattoo ma ko daal moo tax ma toog di ci leeral doomu aadama maa ngi ci leneen am na solo bi loolu amee ba tey dañuy gis ñu a tukki daf leen di jafe wàllu papier ci yoon wu ñu lay jaaree da ngay ñëw indi sa passeport mhm. ginnaaw ba ñu seetlee ba noppi nag boo xam ne ay tegtal mhm. ba indee sa passeport ñu ci dee ko ñetti fan am luñ ci def mhm. digal la ay sarax yooyu def ci wàllu papier rek fooy balance yi nii nga saraxe ko dem déposé ji sallahu dañ la may li muy dalee ci góor noonu la dalee jigéen da gis jigéen koo xam ne léppam day mat bu jekk macha allah mel na war a mel mais du gis ku ne ko dama laa bëgg wala comme nekkal ngor tamit day dem ba ko fa kooku day ànd ak farata bu ni mu dalee góor noonu lay dalee jigéen dañuy mhm. gis góor goo xam ne day wante am soxna toll ci am këram am lépp mais du mën a am soxna mhm. loolu rab moo koy rab bi daf tënk te rab nag nekkul ne n'importe qui moo ko dindi ci doomu aadama nit mën ngaa ñu jox la ay sangal na la sangul sangu déedéet loolu rab ba nga ko dindi ci doomu aadama da nga koy seet ba noppi càmbar ko mhm. xam kii rab bi ko dugg ban façon rab la rabu cosaan la wala ban rab moo ko topp nga xam lan la bu bëgg nga neexal ko ci ay sarax def ko ngir loolu mën koo tàqale ak moom foofu la ñu jaar barab bi dañ macha allah ginnaaw bu ñu ci moom bu noppi nañ jox ko loo xam ne moom dana ko yombalal li bëgg incha allahu taala am na solo fi ñuy tàggatooy nag mooy sa jàngat ci réew mi parce que gis na ne réew mi it dee yi bëri na ñu bëri réew mi mhm. dee yi bëreegut damaa gis fi mu toll nii xale yi bëri yu géej gi lekk mhm. maanaam yu géej gi rey mhm. maanaam képp ku ci ku ci ku ci am doom téye ko ba mu jaar ci ndox mi dama gi dafa dansé tey it wut kaaraange bu baax a baax a baax ci réew mi waaye nañ dalal seen xel a baax te réew ki nga dénk dana ko defar muy Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane ko danañ ko defar. Mhm. te dund gi dana yomb yaa ngi dégg. Mhm. te du ñee benn réew ci réewu Afrique yi. Mhm. li ma maa ko wax. man du ma ànd ak ab tappalekat du ma ànd ak ab naxekat. te Bassirou Diomaye Faye du naxekat te moom Ousmane Sonko seen ànd day neex. mu def mën ko tàqale. macha allah. lan ngay tàggatoo. di ñaan ci réew mi jàmm rek di ko ñaanal suñu bopp di ko ñaanal yow di ko ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha jërë ngeen jëf yàlla jàmm yàgg. macha allah.